bismillaahi alhamdulillaahi sant yàlla war na bismillaahi alhamdulillaahi sant yàlla war na bismillaahi alhamdulillaahi sant Bamba jot na faal war na alhamdulilahi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mbokku taalibe yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan ci Africa 7 ginnaaw bu ñu santee borom bi julli ci sangu-sangu yi euh, di ñaanal suma sang ba euh, sëriñ euh, Laat Mbacke moom Serigne Ibrahima Mbacke moom sëñ mbakke Madina yàlla saa borom guddalu fanam desuwaat nañu ci seen émission Madial mi comme niñ koy defee ci Africa 7 TV Euh, saa su nekk ñu ànd ak yéen euh, comme ni ko euh, suñu sang ba daan defee maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine ñu ànd ak yéen dem màjjaali bu ñu màjjaalee ba noppi nag daañu ànd ak yéen xool ñi nga xamante ni nii bu waxtu dog jotee ñoom ñooy yëkkati ay bernde di ko jox ñi nga xamante ni waxtu dog daf leen a fekk ci kaw tali bi ci Africa 7 TV lay xewee ñu ànd ak ci wàllu caméra bi ki nga xam ne moo di Pape Ba bëgg ceeb ak Pape Sarr tey nag ñi ngi fii ci West Foire juste nga xamante ni moo di taliwaale topp leen ma ñu dem ci màjjal bi ah, ak sa waaw kay. mais Fall maa ngi mais mais mais mais nu ngeen koy dundee nu ngeen koy <laughs> est-ce que ko noonu xam nga xam nga fi mu ne nii waxtu koor heure bii nii euh, yëf xaw dafay xaw a kii nañu xool euh, sama waa ji moom mi ngi nga am benn ku baax na nga def. <laughs> est-ce que nañu xool euh, gars taliba xool gars yi niñ koy dundee weeru koor wi ak majal mi waaw kay voilà Baye Fall Baye Fall seeral moto bi taxawal seer moto bi seeral moto bi maa ngi lay siyaare fi la waree Baye Fall mi waaye sant sëñ Tuubaa euh, ana nan ngay dundee weeru koor wi waaye sant ak màggal mu nekk rek ngi ci Africa 7. waaw waaw émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Madial bi. waaw waaw loolu tey lan ngay wax ci Africa 7. waaw sant sant bu wér Africa 7 moom ñu ngi rafetal rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax macha allah tawféex yàlla na borom bi defal ndam rek ak tawféex jaaramati jaaramati. waa fi ngay ñibbi soriwul. non non parcelle laa jëm. parcelle nga jëm waaw parcelle laa jëm. waaw ndànk rek jaajëf ah. aja zareel mu yaatu. aja may ko mu jàll. bien ba tey ah waaw eh, salaamaaleykum jawrin maa ngi lay jege yaa ngi ci euh, émission madial mi euh, comme ni ñu koy defee ci Africa 7 euh, bu ñu madialee ba noppi yëkkati ko jébbal ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw yow nag ñu fekk la fii ci Ouest Foire yaakaar naa yàgg ngaa yëngal kafe fii de. waaw waaw loolu dëgg la moom yàgg nañ ci de. xamee naa la fi nag même bu dul weeru koor sax da ngay da ngay jaay kafe fi waaw waaw waaw. liggéey bi ñaataat yaa ngi ci. ah na mat na ay cinq ans de. ca kanam a waaw yàgg na de. xanaa café gi moo moo moo moo moo dugg biir Touba moo tax gars yi taamu. waaw dëgg la café gi Touba lay jugee fa lañ koy defaree lépp fa lañ koy defaree waaw. te daal yaay bégal gars yi fii. te ñun ñit fa lañ dëkk waaw. tey café Touba la. café Touba ay jëkkoon lay wax ci di leen bëggee di leen safoo saa su rek di leen ñaanal ca kaw ca kanam rek. waaw li ngeen bëgg yéen ko xam yaa ne la ko Serigne Touba defal jaajëf. ayca defal dara ci Madial ci café gi moom moo koy yëngal fii waaw ma xool sama gars yi Fall Ndiaga maa ngi lay siyaare. waaw fi la rawee nag waaw ñu ci émission Madial mi ci Africa 7 tey ñu fekk la fii euh, ana nan ngeen di euh, dundee weeru koor bi. waaw weeru koor bi de comme d'habitude rek ñu ngi ko yàgg di dundee lañ koy dundee rek waaw di ñaan yàlla chaque année ñu demee nii gën a neex waaw ndax weer yi moom weeru promotion la comme nu ko comme nu ko gars yi di waxee loo ci mun ci lu baax rek. def ko ci suñu borom da la koy fulal. ñu gis solidarité bi nga xam ne dafay am bu waxtu ndogu jotee. Euh, góor yàlla yi di togg ay bernde di ko séddale ñi nga xam ne waxtu ndog na fekk ci kaw tali bi nan ngay yëgee loolu. waaw loolu nag wax dëgg fa yàlla day lu rafet ndax Sénégal dañ ni quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulmans la donc solidarité musulman yi dafa war a daw te ñun ñi nga xam man engin laa chaque jour maa ngi tali bi damay gis loolu foo tourné des fois heure ndogu sax damay fekk bi mais da ngay seere jël sa ndogu naan sa café jël sa pain ànd ak moom. yaa ma gën a yow da ngay càq-càq. waaw da ngay da ngay yor machine rek di liggéey. ñu ngi ci lépp ñun ay businessman la. businessman waaw duñ bàyyi dara càq-càq bi ak weeru koor bi. waaw day dox de. macha allah tubaarkàlla sant rek. ay jagoon defal dara ci màjjal bi tubaarkàlla gis ngeen ko kenn ku ci nekk ak ci côté bi nga xam ne nii ca ngay yëngoo euh, ñoom ñi nga xam ne nii ay moto la ñu yor euh, waxtu ndog fekk leen fa ah kilifa gi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax waaw ñu ngi jégalu moom mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci kaamil bi noonu daf leen dara ci màjjal bi kon bokk aca ñu def dara ci màjjal mi ah ak loolu loolu loolu loolu mënu cee ñàkk euh, souvent da ngay gis sax xam nga gars yi nga xam ne nii dañuy jaay soow ku baax maa ngi lay siyaare de ba am nga jàmm maa ngi tuub maa ngi tuub waaw waaw waaw mi ñu ngi ci màjjal mi kon defal dara ci màjjal mi e mais neex soow mais lan moo tax nga taamu gars yi taamu neex soow ah loolu ah. waaw kay. weeru koor yu soow mi ngi dox. waaw kay naa. yaa ngi koy gérer bu baax. naa yées kay. jaajëf. <laughs> majaal bi ba tey gis ngeen ko. sant yàlla war na. bismillahi alhamdulillahi sant yàlla war na. leen ma Fall maa ngi lay siyaare. maa ngi lay siyaar Fall. naka waar wi. alhamdulilah. nan ngeen di dundee koor gi. waaw koor gi mi ngi nii di neex ah. ah. waaw. ayca yaa ngi ci majaal mi gars def leen dara ci majaal mi yaa ngi Africa 7 bu baax. waaw jaayef mal waaw koor gi nan ngeen koy dundee nii waaw ah, ñi si kaw rek Fall oto bagage ngeen yor waaw ak koor gi liggéey bi dina metti de waaw dina metti waaw jaayef baay faal it ba may leen fu ñu liggéeyee da liggéey mooy loolu doon li mën a liggéey parce que mi sunu réew la mais réew mi ñun ay étranger lañ ci biiru réew mi ñun nous les Sénégalais ay étrangers la ci biir ay jë <laughs> merci beaucoup alhamdulillah sant yàlla war na bismillah alhamdulillah sant yàlla war na nooy dundee koor gi baax xanaa koor gi daf la jàpp waaw koor gi jàpp na ma ne tax nga def sa jàllaa bi nii aju nii waaw instant bi moom xiif moo may bëgg a rey mais li des bareetul non instant bi bu nañ ko gérer ba si kanam ay ci yaa ngi ci Africa 7 ci émission Madial mi ñu ñëw fekk leen fii tey euh, ngeen ni togg ay ndogu di ko jox euh, mbokk julit yi euh, solidarité boobu noonu ndaw ñi di def ci weeru koor ban yëg-yëg nga cee am jullit day na julit day jàppale mboroomu jullitam te am na ñoo xamante ne ñu dog tey ñu woore pour ñu ndogu foog ñu majal ko ñun nag si loolu la leen di jàppale pour jox leen ko ñoom ñu ndogoo ko ñun ñàkk ñu luñ ndogoo ñu ngi sant yàlla bu baax mais ñeneen ñi dañuy jàppale. may wax ci Africa 7. Ah, bi am na solo jàpp leen si rek te woo bàyyi. jaajëf ayca mi ngi noonu ndeysaan ah ay eh, taximaan maa ngi lay siyaare. waaw yaa si jaabu. wàccal verre bi tuuti grand ñu waxtaan waa ci Africa 7 alhamdulillah sant yàlla war na boo yaay kuula alsaan Fall yaa ngi ah? <laughs> <laughs> maa ah, koy yëg kay. Ah, ah. waaw mais yaa ni at mu jot yéen a euh, di segg café Touba gi di ko jox mbokku taalibe yi nga xam ñoo ne ci kaw tali bi ñaataat yéen a ngi def loolu. non lii moom lii moom lii moom yàgg na def na plus de cinq ans yooyu noonu suñu suñu grand yaa ko doon def mais instant yii nekkatuñ ci quoi def quoi moo tax bu ngeen koy joxe ban yëg-yëg alalu Cheikh Ibra waaw waaw ay yoon yoon ñu ngi ni loolu la ñuy dund amuñu lenn lu dul Cheikh Ibra waaw fu ñu nekk nag Touba Njaareem Tiwaawan Njaasaan lépp gannaaw yàlla Cheikh Ibra rek la ñuy dundu Cheikh Ibra la ñu am fu ñu nekk ndogu lii duñ ko mës a bàyyi buñ ko defee fii am na buñ ko defee Touba am na fa yàllaaw Cheikh Ibra rek mi ngi mel ni benn la. ngeen koy dund ñu koy dund fii mu mel ni ñu ngi koy dund Touba. waaw lépp ndigal la rek. fa yàllaaw. bëgg nañu nag bu wér a wér. la wax ci Africa 7. waaye Africa xëy ci kaw ca kanam rek yow. ayca mi ngi noonu yokk ak ndam ah euh, ñu ñu ñu wéy ba tey ànd ak ci émission Madial bi donc ñu xool Baye Fall yi ñoom it ñu ngi fii euh, di seg café Touba gi Fall ñu Mbaal ngi ziare ziare. naka mbég mi. sant suñu tubaab waa euh, ñaata at yéen a ngi segg kafe di ko joxe euh, fii ci weeru koor bi. depuis 2011 ba tey. depuis 2011. Euh, joxe ak ni mu neexee ci xol moment bi ngeen di joxe ndogu bi ban njëkk ngeen di am. suñu tubaab rek kese seetlu na. lañ ci am. Hmm. liggéeyal ko suñ Tuubaa ngir jaamoo ko yàlla loolu rek moo ñu si bàyyi du leneen ñu ngi koy def ay gàtt mais ñun suñu café gi dépendre ci kër gi de bu dépendre ci kër gi Baay Faal yi seen portion yi génne mu mat waaw di ko joxe saa su nekk wax yéen daal dépendre leen ci kër gi kër gi da ngeen ko def juste rek pour loolu pour di mën a jaam ñi rek ndax juróomi ñu ciy sànni di ko xeeb bala nga koy xam nga dugg ci biir bàmmeel mhm. waaw fa ngay mën a ràññee li nga sànni woon ci kër gi joxe joxe tey yaa ngi ci joxe joxe daa yombut lan mooy joxe lan mooy joxe sa waay luy rëy nga laaj mooy joxe. mooy xol bu set bu laaw bu sell waaw di joxe di am yëg-yëg di yëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. yaakaari jàmm tey ak ëllëg. fàttali ñu tur. Nooré. loo nooru si. waaw ah, noonu la demee borom ñaari ma café gi ma xool ubbil ma kafe gi faal nga jëlal ma ko waaw gis nga ko kafe gi ku ko xool xam ni àgg na maa la wax loolu. ak pap pap Sarr pap Sarr gis nga ko pap ba pap dog jotagul nag bu ci def sa xel ba dog jotagul bu ci def sa xel fal aja daf dara ci këll gi ñu ànd ak moom xool euh, beneen beneen sama yeneen gaay waaw aja alhamdulillah sant yàlla war na bismillah kii sama doom la weeru koor wi nan ngeen koy dunde ñoo koy dunde lu baax bébé Awa yaa ngi woor saa est-ce que mi ngi woor. déedéet ah <laughs> feeñ na feeñ na feeñ na feeñ na feeñ na asalaamaaleykum nee na ma naa. Mbaye Fall siyaar baax bi. waaw heure bu bi waaw. boo jigéen yi. gaale laa jugee ah dama jëli mburu. Ah. Ah, waaw tawfeex ah ak taysiir xam nga rek wëru ndogu moom bu jotee dem ci gaañ bi la ñuy def ah def jalabi waaw dem jëri ndogu waaw waaw aca tey ñu gis ndaw ñi euh, bu weeru koor jotee ñuy defar ay ndogu di ko jox ñi nga xamante ni waxtu dog di leen di fekk ci kaw tali solidarité boobu noonu nan nga koy yëg waaw loolu moom c'est le Sénégal quoi c'est le Sénégal et puis bon Baye Fall yi xam nga ñoom tamit gars yi yàgg nañ di di ràññee ci Baye Fall yi loolu noonu quoi et puis xam Sénégalais teraanga la xam xam kenn ku ci nekk heure bi yu si bëri ñuy dañ ñoo ngi ci àll bi tu vois xam nga loolu noonu acte bu rafet la et puis tamit yàlla ci li dund dafa gën a ci loo xam ne dundul daal waaw. jërëjëf lay wax ci Africa 7. Africa 7 macha allah ci kaw sa kanam seen liggéey rafet na. ndeysaan euh, ah waaw kay akasa ma xool ku baax ki. waltuf bina wa xawina wa kullanaay waab lana xusnal xitaami rabbana waay sëriñ tuuba sawaay du ñeewaay ka neenooy sawaay du xàcc jëm fa neen yesu la gëm di gëm ka neenooy mbàkke doy na xarnu beey waajal leen weeru koor wi weeru koor wi teru naay nan ko bokk waajaluy tey màggal muhammadu rasulillahi maa leen nuyoo way wi tey fasanteeg yéen kool ret ci barke Mouhamadou Rasulilaay Mouhamadou Rasulilaay yaay jàmbaari lislaam discours muñ te wet lewet yaakaari ñëpp nga ndax doo gantu doo kuy gën a lee yoneen jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jërëjëf ku baax fàttali ñu tur bi waaw Serigne Touba Thiam ma leen nuyu jànkatu xasaayid waaw dama ñëwoon fii ci studio bi doon préparé benn audio rek romb leen ma ne xaaral ma barkeelu rek ndax lu baax kenn du ko romb te barkeelu woo ci maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal ni maanaam lii am na solo lool maa ngi leen ci may courage di leen ñaanal te sàkku ci yéen ñaan ci barkeb sëñ Touba waaw mi ngi en tout cas Africa 7 ñi ngi kontaan ci yow te it incha allahu rabbi euh, dinañ fasante ak yow kóllëre euh, nga ñëw ca euh, kër gu màgg lan ngay wax ci Africa waa Africa xanaa di leen félicité di leen xamal ni maanaam fii ngeen nekk foofu la. sëñ Fallou daa masa romb benn waay yóbbaale ko kooku kontaan ko sëriñ bi kontaan mu ne ko xanaa ngeen nekk ci yoon rek booy nekkee ci yoon wi fu leen romb yóbbaale leen moo tax Africa 7 yéen ci yoon wi xam naa dinaa leen defal benn benn benn benn way bu doy waar sax. may ñu dara ci Africa 7 nii nii nii rek may ñu ci tuuti. a way Africa 7 laay bëgg a ñun waa Touba àdduna jot nañu xam fan mooy Africa 7 li may yem ci Africa 7 daa war ma émission li may yem ci Africa 7 boo koy seetaan sam xel day dellu ci diine jaaraama Africa 7 yéenay jàmbaari l'islam discours mun te yaatu le wetooy yaakaari askan wi ngeen ndax doo leen gantu doo leen gënale Africa 7 ay maa leen nuyoo way wi jaa ngeen jëf jëfati en tout cas suñu xool sedd na ci yow euh, yal na la yàlla defal jàmm te incha allah rabbi dañu gën a yaatal ak yow euh, ci loo nekk ñu nekk ci Africa 7 gi nii sëñ Fallou na la ci yoon rek ñu yóbbaale la ñu ànd ak moom alhamdulilah sant yàlla na émission mondiale mi ngi comme ni koy defee saa su ne ci Africa 7 gis ngeen nag euh, nga xamante ni nii moom moo di euh, Ouest Foire euh, te ku xam Ouest Foire xam ay Baye Fall yoo xam ne ñu ngi fi ci wàllu mondial mi saa su nekk ñoom noonu lañ koy defee heure bu waxtu bi jotee rek waaw ma fekk sa waay ci mondial bi moom moo yor këll bi waaw mais émission bi moom ñu ngi ko tuddee mondial mi. muy daw ci Africa 7 ana tey ana tey ana tey ba ngi kaay kaay kilifa gi mi ngi non non sax mi ngi nii mi ngi nii taxawal ah aja <laughs> salaamaaleykum yaay boy aja tey Africa 7 ñoom ñoo leen seet si ci émission bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Madial mi euh, te ku wax Madial wax euh, maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ñu majal dem jox ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ñu fekk leen fii tey gars yi di joxe ndogu ban yëg-yëg ngeen am bon ñu ngi nuyoo tout d'abord di sant euh, Allah di ñaan ñu jeexal weeru koor bi ak jàmm incha allah yëg-yëg bu ñu am si tey mooy bu ñu mës a am ci weeru koor ndaxte ay ndaw la ñu nous sommes l'avenir de la nation lu may wax nit booy xool ci sa morom bu amul dara wala mu yor benn yow nga yor juróom boo génnee ci li nga yor nga jox ko amaana xëy na métti dina wàññeeku wala souffrance dina xaw dina wàññeeku tuuti tuuti daal macha allah man yëg-yëg boobu noonu laay am bokk ko ak sa morom ndax li nga yore yàlla moo la ko jox yàlla mayewul dafa abale yow yor nga kee yorul suba moom mun na yor yow nga ñàkk parce que nit mën nga ko a am suba mu ëppale wala mu mu uh, la macha allah. wax ji na solo ayca defal dara ci màjjal mi ñu ñëw ci uh, sama waa ji bu baax maa ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay delloo ziar. Ah, président ASC Xandal bu Ouest Foire. oh président ñu ngi lay siyaare. la ko delloo. Euh, tey ban yég yëg nga am ci weeru koor wi nga ñëw teewee lii nga xamante ni euh, lépp social la euh, ndax yàlla suñu borom moo ni nit ki woor ba ngoon jot nga yëkkati donte lu doy benn doomu tàndarma jox ko mu ndogoo am nga yool bu doy ni bi mu am te du yàq sa bos dara tey nga jiite ndaw ñi bën yëg-yëg nga am. waaw d'abord maa ngi leen di nuyu d'abord ah, di leen sant di remercier aussi initiateur yi. parce que santiment bi nga wax sentiment bi ñu xam mooy euh, sentiment tawfeex parce que wax weeru koor xam ne weeru ngëneel la euh, weeru jàmm la weeru yërmande la weeru njëgal la donc képp lu ci waay dox aussi tamit euh, suñu borom moo ko wax dina la ko fulal donc tey ma ñëw ànd ànd ak aussi soxna Khoudia nekk présidente des cellules féminines de l'ASC Xandar donc ak Khadija nga xam ne kenn du ko présenté moom toll na ci ay ASC boo xam ne mënoo xam sax ban temps koy jox muy Khadija mu féete sama càmmoñ donc aussi di gunge Aïcha nekk vice président donc ma à ma qualité de président de l'AS Xandar donc suñu devoir la ñu ñëw euh, jàpp ci bés bi euh, jàpp ci ci ci ci plan yëpp parce que amuñu lu suñu quartier donc yéen aussi ay dëkkandoo Africa 7 si dans le ci quartier bi la ne donc c'est nous daanu donc lu ñu mën daal ndaw yi conscientiser leen war ne daal euh, jaamu yàlla ci la bokk liggéey jaamu yàlla donc moment bu bu ñëw ci vie bi rek nga xam ban taxawaay taxawaay bu nga ci am taxawaay boo xam ne ne taxawaay bu gën la taxawaay citoyenneté la taxawaay jullit la taxawaay bu bu bu remarquable la donc loolu moom di suñu teew tey quoi. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. ayca ñu def dara ci majaal bi yaay booy. waaw salaamaaleykum. maa ngi lay siyaare. maa ngi leen di nuyu bu baax waa Africa. man la Soxna Khadijatou. Lucas nekk fii vraiment ci membre ci association sportive culturelle bu ASC Xandaar e bi di rafetlu vraiment lii lii la ñu xam ñun Sénégal lii mooy suñu baax baax lii la ñu xam esprit de solidarité de partage rawatina weeru koor ñëpp a bég xol yi moom vraiment dafa fri vraiment dañoo kontaan di ñaan rek vraiment daal daal nañ ko fekkee ay at bu nekk rek ñu mën di ko célébrer yéen tam vraiment ñu ngi rafetlu seen teewaay fii vraiment ci ci kii bi jëm bés bi ba gën koo valoriser mbégte rek ale ci kaw ci kanam vraiment. yow en tant que soxna euh, li ma laaj rek lenn la muy suukaru koor ñu gis mag ñi bu njëkk ni ñu ko daan joxee euh, xool seen morom bu nga xamante ni loxoom jotul ginnaaw mi jox ko ci sutura léegi suukaru koor dem na ba indi tendance bu rëy. ci jigéen ñii am na ci sax ñoo xam ne ni buñ ko joxul seen ay goro ñu dem lebi ko en tant que jigéen. waaw mais en tant que jigéen euh, pour man euh, def lu baax du waroo xaar ba weeru koor jot nga di ko def su koor koor ñi ko doon def lu baax lañ ci jublu woon defar ko seen goro wala defar ko seen njëkke mais pas weeru koor ki lu baax doomu aadama la nga ci war di sax te mbaax mënta weesu sa goro sa yaay la kooku da nga ko war di teral da nga war di saafonte moom bokk ak moom jàpp ko comme ni bi nga bàyyi sa kër bul xaar instant weeru koor pour def ko te goro yi aussi tamit yombalal ko goro yi ndaw yi ba nga xam ne ku la joxul suukaru bu ko jàppee bu ko jàppee xam ne kii sama doom la su ma ko joxulee na sëy si rek moo may samay sët na sëy sëy bi rek. ayca <laughs> jërëjëf ba ngi noonu gars yi euh, ci euh, mondial bi ba tey. Euh, Baye Fall bi nag moom mooy segg café gi fii maam Cheikh tey ñu ñëw fekk leen fii nii ci bés bu màgg bi ngeen yàgg koo def bi weeru koor bi teroo ba léegi. Euh, joxe ak ni mu mel ci xol ban yëg-yëg nga ciy am waaw li ñu ci yëg moom kontaan rek parce que lii moom dafa neex ci koñ quoi xale yi ñëw mag ñi ñëw xam nga ñëpp déggoo xam nga dafa neex quoi franchement bu ñu sañoon nag day gën a yaatu quoi xam nga ñëpp di si jàpp tamit xam nga ñu ñëpp ñoo far xam nga xam nga affaire yi xéewal saawan baawan xam nga ñu ñëpp xam nga ñoo far quoi on est yow yaa yow la ñu dénk wàllu café gi waaw waaw ma bëgg nga ñëwal ma ci café gi Pape kay xoolal ma café gi mais café gi moom liggéey bi liggéey bi nu muy demee noonu liggéey bi moom maanaam jënd suñu café bu baax jëlee ko Touba tout droit nag waaw jaarul fenn di ko segg ba mu baax defal ko jox suukar ba mu saf ak lépp jox jaam ñu ñuy xewlu waaw. mais seggu seggu seggu gaz wala wala wala segg matt ban moo ci gën a am. bi mooy bu baax bi bi la gars yi xam. bii la gars yi xam bii la gars yi xam. bii lay wax ci Africa 7. Africa 7 moom taw féex rek ci kaw ci kanam rek barke maam Cheikh a ak ça jaajëf maam Cheikh. ayca gars yi ñu ngi noonu waaw ci ndogul yi ayca lan Fall maa ngi lay char naka wu <laughs> xaaral ma xool Baye Fall bi. Eh, mais grand siyaar naa la. waaw mais. ñu ngi delloo siyaar. naka naka yëngu yi. waaw sant bu wér xam nga. waaw aje ñu ngi ci émission Madial mi tey ñu ñëw. waaw ndeysaan jawrin waaw grand Papis waaw moom suñu jantal grand la. aje tey Africa seet seet si leen. waaw ma allahumma laka sumtu. aje dogal ba pare dogal dogal dogal dogal koor gi dogal koor gi. <laughs> gis nga ko dogagul kooram ah. dogagul kooram nii. waaw mi ngi dog eh mais ma kaas ma dog yow mais ma kaas ma dog mais ma kaas ma dog. aja dong nga ba pare delloo leen lépp ah naka yite yi lépp taw bi xaar ah. ñu ngi màggalaat. waaw mhm. ma jox la nga dog ma jox Pape Sarr. waaw mais aja lañ ko ah. aja waaw mais ñu ngi lay siyaare. ñooy fii la fii euh, ñu gis gars yi euh, yàgg nañu def lii ci weeru koor wi euh, tey joxe ak ni mu mel ci xol moment bi nga xam yéen ngi def lii di ko joxe ban yëg-yëg ngeen ci lu dul delloo lépp ci borom bi rek. waaw delloo yëpp ci borom bi lépp mënoon na aju ci yéene gi rek waaw mënoon na aaju ci yéene gi rek bañ ci fekk si jëf gi mais jëf gi geeg yéene gi bu àndee maanaam suñu borom daal moom mi nga xamante ni mooy dik diktal lu mel nii ak suñu wasila ñu xam ku xam si Ahmadou Bamba am njabootam lu ñuy def ci wàllu ndogu ak wàllu euh, jaamu yàlla ak bernde ñun daal fu mu toll nii dañoo initier rek waaye defuñu dara waaw dañoo am ab mbébét suñu xel rek bu def lu rafet rek mais daanaka daal du lenn daal. waroon mën a yaatu. ayca lan ngay wax ci Africa 7. waaw Africa 7 ca kaw ca kanam yàlla leen borom bi jàppale ca kanam ca kaw ca kanam. jaajëf jaajëf Baye Fall maa lay ziar. tur bi na la. Alioune Badara ban Baye. Alioune Badara Baye Fall. waaw jeex na Baye Fall dafa mel ni yaa ngi ndogu nii de. waaw gis nga heure bi jot na gars yi gaañ ci kawam ñaata at yéen a ngi def lii waaw lii moom yàgg na dama ne mën naa ne depuis tout tànk ba léegi waaw mais dama bëgg a ñaaxaat sama mbokk Baye Fall yi parce que Cheikh Fall dana joxe moo gën julli maanu moo gën koor jàng moo gën liggéey kon donc nañ gën a farluwaat gën a dox seen fulla dox affaire yi respect quoi parce que damay gis yéen ci ay ci yenn tante yi ni muy mel neexuma man en tant que Baye Fall nit da ngay def loolu dañ lay nawloo parce que Serigne Fall noble loon kon mbiru Baye Fall affaire de noblesse la donc kon lii nii la man yàlla laa ciy gis donc nag nit nag buñ la xeebee te na nga doxe la te yoon bi bëgguma kenn di ci ma yàq der war a salter parce que lii noblesse la lii joxe maam si Abdou Karim loolu lay doxe yërmande moo fi teewal kon donc na gars yi gën a dama leen gën a soññaat pour ñu defal seen taxawaay gën a farlu parce lii doy foofu jëf jël la. jëf jël waaw jëf ñàkk jariñ. cëm ay cëm ma nga noonu. waa siyaar bu wér Ousmane. ay cëm ban yëg-yëg nga am tey ci li nga xamante ni euh, ñu ngi koy def fii nii ci Ouest Foire. waaw yëg-yëg la la parce que eh, lii dañ si jublu pour dëggal jubal leeral liggéeyal suñu borom ñun ay taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babu Mourine Cheikh Fall moo waral ñu def lii tey yi ñu def nii si yoonu Cheikh Ibrahima la lañ gis moo ñu teg si yoonu siraatal mustaqiim ba tey tey ñu di jubal di leeral di yaatal day jégal jox ku luxu doomi aadama dinañ jox ñuy xewlu di barkeelu loolu luñ ci jublu jublu ñu ci leneen barke sëñ Moudou Mbenda Fall waaw ay Baye Fall nag. mais Pape kii dafa way Café Touba ba way Café Touba dëggal jubal leeral. waaw bile ak noonu cap cap rabre ah. waaw cap rabre. waaw daal bi sëñ Dame Moudou Mbenda Fall. waaw benn bu mun fukk bile Sarr la barke sëñ Baw kookoo ba def Sarr waaw barke sëñ Touba waa association baa ngi nii ñii ñoo jàpp si bi parce que waaw Baye Ndeye Fall ak Soxna Fall la maam si Seex Fall Modou Mbenda loo wax ci Africa 7 Africa 7 leer na bak sëñ Fall ay eh, Bamba xaaral ma jël sax yi xaaral ma jël sax yi ñëw taf taf ñu xool euh, Baye Fall ñoom ñu ngi nii di ndogu salaamaaleykum maa leen di siyaare yaay booy naka ni ngeen koy defee nii moom tuwaar de. Euh, wi nii. ñoo ne ci wàllum ceeb beeg yooyu noonu. ak ginaar yeeg kajang kajang. waaw gis nga de sama caméraman bi bala sant de. <laughs> Bamba de ko sóoraale dégg nga. incha allah ñaata at yéen a ngi def lii. c'était la première fois ñu koy def de. ñu ngi koy soog a def. ban mbégte ngeen ci am ak joxe ni mu mel. ah kontaan nañ da wax dëgg yàlla. Ah. kontaan nañ trop la rek. wax ci Africa 7. Africa 7 ah foofu sama télé la. waaw ñu nag ñoom dañoo yàgg depuis point 1. waaw waaw ñoom Cheikh Thiam. ah Africa c'est sama télé la. Ah, maa leen xam. Ah, yow la kan yow. Thiam bëggee naa la man la Amina. Ah, Amina la ngay mariné. dégg euh, teg nga ko ci temps jërëjëf gars yi ñëw leen fii ma xool euh, ñu xool yaay booy bi soxna si ñu lay siyaare. maa ngi delloo siyaar. Euh, yow yaay yaa yor wàllu marinade bi. waaw ñoo ko yor wàllu ceeb beeg. kii moom ni nga ko mariné Pape ni dal ma lii. <laughs> mais Youssou Gueye Youssou Gueye ak euh, Zil Khariba yéene naa leen ci nag mais tey ban yëg-yëg ngeen am ni leen fekkee fii ci Ouest foir ak euh, ndogu yi nga xam ni dañ koy def fii. ah tey moom kontaan nañ franchement parce que tey ku xool li xam ni bésu sëñ Bamba moom xam nga du yem du tuut dëgg du neex moo tax nag berne yeeg yëpp ngi fii rek ñëpp xaj nañ si na ñëpp ñëw rek parce que depuis ce matin moom contenté rek mu ngi ma nii màggal daal la ñuy jox màggal. <laughs> waaw lu waral loolu lu waral loolu. ah yëg sëñ Bamba si xol bi rek si xol bi rek. sëñ Bamba ci xol. leneen da caa leneen xaju jërëjëf kii c'est mon ami mon frère Ngagne Sène. waaw DJ ma artiste bu mag baa ngi nii. Euh, borom Yoff Ngagne maa ngi lay siyaar. maa ngi lay bëggee di la. naka mbég mi. sant yàlla di la tey ñu fekk la fii ci euh, barabu ndagukaay bi. Euh, tey ban yëg-yëg nga am. waa di am kontaan lool parce que bi ñëwee si koñ bi yàggul mais mu ngi mel ni dañu xamante cent ans la famille saa yu ñëwee li ñuy def ba mu baax gars yi ay borom baax lañ ñoom ñëpp di leen béggee di leen ci yaar di leen wax li naaj na trop yal na yàlla def ñu di ko def ay déwéni déwéni déwén baax di yàgg ko feete waaye ñu te liñ ciy mbébét tamit ñu di ko séentu ñu yàlla defal ñu ñu am ko si di bëgg gaa yëpp te xam ne kontaan na affaire bi naaj trop trop. ayca lay wax ci Africa 7. waaw Africa 7 moom kenn du ñëw sama télé la télé ñëpp la sax télé artiste la waaw du du waaw du tey laa fa nekk kon ca kaw ca kanam mention spéciale. ayca kii nag Baye Fall la artiste la Ngagne Sène borom Yoff. Euh, waxtu koor yi moom xam naa ne fi ne nii aj ngeen gale ñi. ah instant bi dañ aj mais ñu xaar la après Korité. Ah, ñu ngi waajal yenn affaire après rang muy gaaw. ma noonu ndeysaan ay ci ñu xool ñi nga xamante ni ñoo fare ci wàllu raxas mi. kii mooy Fatima. maa ngi ne sam Cheikh Ibra. ba yëg ngeen ni yow yaa gérer laax bi. waaw ñoo gérer laax bi. Eh, eh, eh, papa papa papa defal ndànk moytul laax bi moytul laax bi papa boo mbëkkee lax bi di nga am problème de laax bi nga ne yaa ko yor. ñoo yor laax bi yor ceeb bi yor yàpp bi ndawal yi lépp ñoo ko yor ñun ñëpp benn bopp lañu Ouest Foire tey toj na ñëpp génn nañ sant Cheikh la Serigne Touba rek la am fu mu ñu woo ñu wuy ko lu ñu jàppoon bàyyi ko ngir jëmmi Serigne Touba bég nañu nag tey xol yëpp a dundaat xol yëpp a dund ci Ouest Foire barke Serigne Saliou Mbacké bég nañu lool na ñëpp di jaara fi rek nag yokk ba yëg ko ci barke Serigne Saliou mbégte mi rek mbégte mi rek ay jë ndeysaan mbégte mi rek yaay booy ñu ngi lay siyaare bu baax a baax ñu ngi delloo siyaar baa yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi dégg mbégte mi dafa mel ni yaatu na fépp de dafa rogonaar <laughs> wala ngaan tuuru yéen a ngi koy yëg bu baax ñu ngi yëg sëñ bi bu baax ñu ngi koy dund nii wallaahi yéen a yore laax bi waa gis nga gis nga rek affaire yi soow la wala nëtëri la nëtëri la lépp lan boole lépp ah, ah, am na nëtëri soow bi lépp waaw ah, tabarkalla waaw ni ngi benn pam di nga am problème de pap pap di nga am problème de kaay <laughs> pap di nga am problème pap di nga am problème waaw moom kii na dund nañ ko eh, yaay booy max la mais pap kii kii sunu sunu sunu jigéen la tournel tournel tournel ni max non jàpp ci kii sunu jigéen la borom Paris la France eh, di nit koo xamante ni nit ku baax la tey Africa 7 ñëw ci émission Madial mi fekk si leen yéen waa Ouest Foire eh, ci ndog yi nga xam yéen a ngi koy def ban yëg-yëg nga ci am Euh, di sant yàlla bu baax euh, di jee di sant si yàlla li mu ñu may ñu fekkee ko di ñaan yàlla may ñu fekkee ko at yu bëri di sant bu baax si initiative bi nga xam ne tey jeunes yi moom la ñuy def muy euh, ñun yàlla rek la ñu am yenente bi ak sëñ Touba donc ñu di ko saxal tous les jours di ko doxee tous les jours ci jikko yi ci waxin yi rafetal bi macha allah partage parce que san partage en fait loolu la ñu yàlla sant Euh, te ci ñoom loolu la ñuy dox di gën a góorgóorlu ci seen diine di gën góor lu si def lu baax donc euh, sant rek sant yàlla bu baax sant si fekkee bi euh, di ñaan yàlla may ñu fekkee ko at bëri ak beaucoup de bonheur beaucoup de joie que du bonheur parce que mu ne wu ma wax mais que que du bonheur entre xol yi sedd na le monde xol yi sedd na trop vraiment xol sedd na parce que ça fait plaisir de voir que tous les jeunes se retournent vers l'islam tous les jeunes se retournent vers Dieu et Seydina Mohamed Salah Salam ak sëñ Touba te loolu moo am solo parce que loolu mooy lépp yal na yàlla baaxal rafetal euh, alléluia. jërëjëf merci beaucoup donc mi ngi noonu. aja ma bamba bisimilah ci màjjal mi euh, ñu ci afrique 7 ci émission bi nga xam ne moo di màjjal mi euh, tey ñu ñëw fii nii seet si leen yéen aussi itam ngeen di def li nga xam ne moo di ndogu ñu gis joxe bi nga xam ne nii Baye Fall ñu ngi koy joxe ñaata at yéen a ngi def nii onze bilaa mi seytaan rajiim bisimilah rahmaan rahim maa leen di siyaar bu wér di rafetlu seen liggéey di santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax waaw lii nag moom ku ne xam na weeru koor suñu borom wax kon bu yàlla dimbalee ñu mën a def lii nii dañ koy sante yàlla suñu borom sant bu baax a baax a baax a baax a baax lii nag moom mooy première édition bi comité bi nga gis ne mu tombeel euh, ci fukki fanu ñu mujj ci koor gi maanaam laylatul xadr kon tey dañuy ñaan lépp lu ci waay def rek muy koom-koom bi di ñàkk bi suñu borom ful ko mu doon ay xéewal di leen ñaanal yéen tam waar wi ngeen nekk yàlla na leen suñu borom yëkkati ba ngeen gën a kawe te lépp luñ ci séntu rek yàlla nañ ci am lu ci kawe suñu njortu waaw te lii nag moom du bésu maanaam wax sant rek waaw jëf rek moo fi nekk wax ji matu ko sax mais jëf rek waaye comme lii moom mënu cee ñàkk sànni ci ay kaddu rek mais kaddu yi moom du lenn dul ay kaddu sant rek waaw dañuy sant bu baax a baax a baax baax di rafetlu liggéey bi nag baax di leen ñaanal nag ca kaw ca kanam rek taw feex rek jaa ngeen jëf jërëjëf Mame Bamba jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax waa Fall Ndiaga mais ah sa ay gaan ajo ma xool ma xool ma xool sama yi ñoom ñu ngi seere laax bi Fall ñu ngi jaajëf euh, yaa ngi ci soom wala yaa ngi ci nëtëri ji maa ngi ci nëtëri ji gaan <laughs> Papa kii mi ngi ci ajo ban yëgee nga am sant rek sant rek surtout Ahmadou nag sant bu baax a baax a baax daal na yàlla fay ñëpp jaajëf ayca ma nga noonu ndeysaan sama gars yi maa ngi leen di siyaare yéen a ngi ci màjjal yow yaa ngi ci soow mi waaw ñoo ngi ci laax bi waaw kii mi ngi ci soow mi sànq kee ci nëtër bi la nekkoon ban yëg-yëg nga am ah yaa ngi ci soow mi yaa ngi ci nëtër bi maa ngi ci laax bi yaa ngi ci laax bi laay ayca ay fa bintu kaay faat fa fa fa ay fa fa kaay <laughs> kii kii moo seere woon togg gi ay fa kaay waa ji biir laa lay fekk de. daw na daw na. ah jëlal ma loolu. jëlal ma noonu. jëlal ma ko jëlal ma ko. jëlal ma lii <laughs> defal dara ci Madialle ba pare ñu door a dugg ci question yi ñun ak yow. yow yaay borom yow. koñ bi yow yaay borom ko maa moo gérer saf. ban yëg am ci lii. waaw kontaan rek. kontaan. jaajëf. eh Fall Diaga. jaajëf bisimilah defal dara ci Madialle mi. waaw da ngay door a wàcc ah. kay yokk ak rek. alhamdulilah sant yàlla war Islam jàmm loo gàmmuloo laay lay la la sayyiduna mu jàmmaloo moonu yem laa e, ilaaha illa e, laay e, faal laa ilaaha illa laay yagaba laa jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati ay ca mbokku jullit yi mbokku taalibe yi euh, gis ngeen loolu mooy li nga xamante ni àndoon nañ koo génn tey ci seen émission Madial mi muy am fii ci Africa set Euh, gis ngeen ni nga xamante ni noonu lañu ñu doxee ci kaw tali bi ànd ak mbokku taalibe yi ci majal mi euh, biñ fa jógee it gis ngeen tam ni nga xamante ni noonu la mbokku taalibe yi di joxe ndogu euh, tey fii ci westu Foire ñu ñëw fekk fi ñi nga xamante ni ay taalibe lañu joxe nañ fi ay ndogu gis nañ fi ay laax gis nañ fi ceeb yeeg ndawal yi ku ci mel ni Pabba parce que dégg yàpp dañ koy tere ndawal la ñuy wax Pabba sa xol sedd na tey mais lii may nañ ko Youssou Gueye Youssou sa plate mi ngi ñëw waaw yow ak Papa Thiam Gaston ah seen plate mi ngi ñëw léegi léegi kon ñu jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm sàkku ci yéen yàlla mi nga xamante ni moom am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu borom bi defal jàmm jox leen dox daje ba beneen émission incha allah Pape Ba moo nekkoon ci caméra bi ak Pape Sarr jaajëfal ñëpp jërëjëf sant bismillahi alhamdulillahi sant bamba jot na alhamdulillah rabbil alamin bak fal war na